طلوع الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم بالله من الشيطان الرجيم bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam eh, mbokki banlieue tv ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen dalal fii nii ci barabu nuurulaahi 322 di sant yàlla bu baax a baax a baax ci bés bi ñu bokk teewee ko ñun ñëpp en tant que kuy woote woo jullit li nga laaj ci bisub ci bisub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak guddik yonent bi ban sentiment lañ ci am ban yëg-yëg lañ ci am euh, yëg-yëg yiñ ci am nekk na ay yëg-yëg yu wuute yëg nañ ci ne ndekete yonent bi sallallahu alayhi wa dimbali xeet bi rek moo ko fi andi woon yëg nañ ci loolu bu wér yëg nañ ci ne yërmande xeet bi rek moo taxoon mu doxee ni mu doxee mais yëg nañ ñi tamit jàll xeet wi donc moo taxoon mu wàcc ci kaw suuf ba tax na tey loolu lu ñuy gis bis bu nekk la lu ñuy dund bis bu nekk la mais rawatina bis bu mel nii ndax boobu dañ ko doon dund nit par nit tey yàlla dogal ñëpp àndandoo dund ko te moom moo ñu waxoon ne ak jamaatu rahma mooy yoo mbooloo bu ñu àndee teg ci njub yoo mbooloo moomu mbooloom yërmande lay doon kon ñu gis ne tey ni ñu ko àndandoo ñëpp reconnaître ne yonent bi mooy sauveteur bi ñëpp reconnaître ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ndimbalal xeet wi mooy ndimbalal jaam ñi am naa ci yëg-yëg bu sori te mooy ndekete li ñuy yëg kenn ku nekk ci ñun ndekete bu ñu ko dajaloo mu nekk nekk yëg-yëg bu ëpp doole mooy lan mooy mooy loolu mooy lan mooy boo génnee ci biti yaa ngi gis ñeneen ñoo xam ne ñu ngi njukkal yonent bi mais ci façon boo xam ne yow daf lay yéem da ngay wax ne est-ce lii sax njukkal la te fekk na ñoom ci lañ yëg yonent bi sallallahu alayhi wa nga dem ci beneen barab gis ñeneen di njukkal yonent bi sallallahu alayhi wa ci guddeem gi njukkal boo xam ne yow ak ñële la yéem soo àndoon dañuy wax ne lii du gàmmu te ñoom boo demee li nga yëg ci yonent bi ñu yëg lu ko ëpp kon ci lañ yëgee ne mooy yonent xeet yi nekku fi pour benn nit nekk fuur benn famille mais ndimbalal ñëpp la ndax bisub guddik tey kenn ku nekk yaa ngi koy célébrer à ta manière di ci yëg ne ndekete rasulullahi mooy tawféex man yëg-yëg boobu laa ci am dama yëg ne bu ñu àndee maanaam yonent bi day multiplier wu loolu laa ci yëg nekkatul muhammadu rasulullahi mais yonent xeet bi tey moom laa yëg tey dama gis ñëpp kenn ku nekk ma gis nu ma ko dundee ma xam ne ndekete moom du pour kenn rek kon nag moom mooy yonent xeet bi mooy ndimbal li mooy xettali ma ànd ceeg nag mbégte ci loolu bu ñu ko doon def man kese bu ma ko doon def dinaa ci bég mais su ci ñëpp àndaatee tamit dama ciy gën a bég kon mbégte laa ci am. léegi gis nañ tamit que ni ko en ce moment tey ren jii contexte gàmmu dafa xaw a particulier gis nañ Macron muy gën di diaboliser musulman yi. yow en tant que guide religieux yow loo si war a mën a wax ak lan moo si war a nekk sa taxawaay. aw <laughs> jërëjëf soxna si lépp ci gàmmu gi la ndax yonent bi moo xewle te dafa yaatu ginnaaw. xam nga Macron alxuraan li mu ci wax rek laa ciy wax duma ci yaatal alxuraan dafa ni wa makru makaran kubaara alxuraan dafa ni waaja wa gaaya dañoo weddi weddi gu rëy ba muy wax weddi Macron la wax mu ne moom Macron weddi nañ kon moom weddi na ci alxuraan yàlla signalé woon nañu ko yonent bi waxoon nañu ko mu ne makaran weddi goo xam ne kubaaran gu mag la weddi gu mag googu alxuraan tuddoon mooy soog a egg si aaya bi la ñu firil jarul coow. ay at ñu koy firi ci jàkka yi liñ doon firi moo yegg si wa makaro ci alquran makaran kubaara yàlla nag tontu woon makaro la ma ko tontu rek laa lay tontu yamkuruuna wa yamkurullaahu wallaahu yam makiriina yamkuruuna yaag sa jabar da di ànd di weddi wa yamkurullaa yàlla tamit dina leen weddiwaat ba wee ba ngeen weeru bëccëg dara kàmm wallaahu xayru makiriina yàlla moo leen gën a garaaw ay pexe donc lu alxuraan wax ba mu jàll répétition la rek.